Following the Gambia ferry service announcement that the ferry operations uh, crossing the Banjul-Bara route are, uh, are, suspended until further notice, the management Monday briefed journalists on the ongoing maintenance of the Kunta Kinte ferry, which has been, or which is of course expected to be uh, renovated for a period of six weeks. This latest update comes after the Kanilai ferry on Friday stranded in the middle of the water due to technical issue uh, while on route to Barra. Uh, resulting to a wide public outcry over the incident. Our reporter Aisha Jane tells us more of that in this report. The Banyan Barra ferry crossing continued to be a nightmare to many Gambians as it has become an increasingly dangerous and difficult journey for most people, with many of whom believing that the ferry service is no longer reliable and efficient for commercial travelers. In the Gambia, river transport is now one of the major problems that travelers are facing and this has been a persistent problem for many years, especially between Banjul and Barra. The Ferry Service Management on Monday held media conference to update the public on the ongoing maintenance of the Kunta Kinte ferry and plans to remove Kanilai ferry which has been grounded at the sea since on Friday. The managing director of Gambia Ports Authority, Usman Jobate, emphasized that they will do everything possible to remove Kanilai from where it's being stuck. It's uh, still adrift at the bank we are sparing no efforts to ensure that it is out because uh, people. With the public on the ongoing maintenance of the Kunta Kinte ferry and plans to remove Kanilai ferry, which has been grounded at the sea since on Friday. The managing director of Gambia Ports Authority, Usman Jobate, emphasized that they will do everything possible to remove Kanilai from where it's being stocked. It's uh, still adrift at the bank uh, somewhere in Bara. Um, but we're making efforts to make sure that uh, she's salvaged and towed out because uh, she's actually run aground in the mud. And uh, at high tide, we have very limited draft in terms of the craft that can go there to do the salvage operation. Because most of the tugboats we have in country are four meters and above, and there the water depth is about less than two meters. But our team, as uh, Dabo has said, there's another team that we've mobilized to look at how to improvise another mechanism to ensure that the ferry is afloat and then we can tow her out. But uh, we are sparing no efforts to ensure that it is out because uh, people's property still are on board. Commenting on the ongoing renovation of Kunta Kinte Ferry, Senior Electrical Engineer Officer at the Banjun shipyard, Mr. Davo said the work is an advanced stage. The work is ongoing. Uh, we have divided our team into two shifts so that means we are working 24 hours, you know, from morning to 7 o'clock. Another team will come by 7 o'clock till the following morning, 7 o'clock. Uh, the grade about 50% of the painting inside have been done. As you can see, to the welders are hard on it. Uh, at the front side, what we call the bow, the bow side, will be covered today the general manager of the ferry service, Abdullah Tambedo, further reveals that the Kunta Kinte ferry, since it started operating in 2017, it has never been taken out for maintenance. Ferry started service since 2017 in June, and the, all of you can see that it has never been brought up and a maintenance work like this done. So we are progressing well. Once it comes down, as uh, Mr. Musa Dabo said, on behalf of the shipyard, the new engines would be installed. Hundreds of passengers on Friday found themselves stranded aboard the Canali ferry in the middle of the sea due to a technical issue while en route to Bara. The situation left passengers in a state of fear and frustration after spending several hours at the sea before successfully being evacuated to safety without any loss of life. According to the ferry service, the Kanilai ferry is also withdrawn from service in order to bring her up at the dry dock for the same repair as being done on Kunta Kinte. New engines and Publius system will be procured and expected to be delivered in 12 weeks from date of order. Reporting for iAfrican News, I am Aisa Tujani. All right, thank you Aisa, for that report. Mungkin um, noonu mu don lu am solo ci update bi nga xamante ferry service def nañ ko niki démb ànd ci Gambia Port Authority di ngeen managing director bi Mr. Ousmane Jabate, of course, like the Ferry Service General Manager, uh, Abdul Mr. Blai Tambedu, and of course the Kennedy Senior Engineers, foofu ci sibiyaat bi ñu wax askan bi fan la maintenance bi nga xamante ne ñu ngi koo euh, def euh, ci Kunta Kinte ferry bi fan la liggéey bi toll euh, jàpp nañ ne fu mu nekk nii liggéey bi comme ni ngeen ko gisee ñu ngi ci kawam bu baax a baax ñetti weeks yaa ngi nii ñu ngi cee liggéey bu baax daanaka yeneen ñetti semaine moom moo ci des pour liggéey bi pare gannaaw bu ñu jéggaloo li nga xamante ne mooy situation bu am ba pare waaye jàpp na leen daan na askan bi. Euh, may leen tuuti rek ñu jekkale liggéey bi bu boobaa bu kuntakinte feri bi wàccee rek euh, lu bari ci jafe-jafe dina wàññeeku euh, ba balaa ñu tàmbali tamit defaraat li nga xamante ne moom mooy feri bi di kanilaay kanilaay feri boobu jamono yi ñoo wax ak yéen ni wala ba démba bu ñu doon addu ci press conference fekk mu ngi woon fu mu nekkoon foofu ci biir géej bi fuñ fu mu bu ñaadu exactly foofu la foofu la nekk Euh, mu nekk li nga xamante ne mooy ñu ngi doon def nag ay pexe ni ko euh, GPA boos bi waxee pour jëlee ko fa pour ñëw indi ko tamit euh, mu stand by bu Kunta Kinteh pare moom tamit ñu eggal ko pour mun a defar li nga xamante ne moom mooy ferry boobu mun ñang yaa ngi fa woon démba ci kaddu yi nga xamante ne wax nañ ko dafa mel ni ñoom tamit soo gisee ñu génnaat wax xam nañ ne situation bi am na fu mu toll te tamit askan bi ñu bari am nañ ci métit bu baax am nañ ci naqar am nañ ci jafe-jafe euh, ba tax sax donte ne def nañ press conference ak tamit euh, ku mel ni seen euh, PRO bi mooy ku yore kàddu gi Ferry Saff ñoo na fi démb di wax ak askan bi waaye taxul tamit ñu woote waat presse ba léegi pour wax ak nit ñi ñoom tamit seen taxawaay pour gis ne indi nañ saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne askan bi mu ngi ko dund ci nu mu gën a gaay waaye lu wérte war mooy problème am na te dafa mel ni réalise nañ loolu. ñu mun ngaa wax ne ñu seen ñu ñu amul pexe. Mhm. ñoo taxawoon di jàkkaarloo askan bi. di wax si lu xew. Mhm. amuñ si pexe ñu seen yaakaar tas si lu xew. because benn ferry boobu leen yaakaaroon mën a jee ko. waaw dem ak dikk bi diggante Banjul ak Baara ba kunte kunte pare. Mhm. so gars yi yaakaar boobu leen amoon. dafa mel ni yaakaar boobu mujjewul sotti. mooy mujjee tas moo taxoon ne kon ñu daanaka ñu am yaakaar bu tas. ñoo taxawoon di jàkkaarloo askan bi. doon jàkkaarloo askan bi di leen doon wax loo xam ne ni ñoom buñ sañoon du loolu lañoo ñoo askan bi wax leen gos buñ sañoon leneen la wax waaye du loolu mm, parce que Baara bu féeri dawatul rek loolu loolu loolu problème bu rëy la problème ëpput ko si réew bu mag la mm-hmm. because dafa nekk euh, diggante bu nga xam ne lum lëkkale dafa bari mm-hmm. spécialiste si bunt boobu noonu luy jógee Sénégal ak anyway ak ñu dëkkee boor boobu mm-hmm. yëpp foofu la ñoo jaar dafa nekk diggante bu nga xam ne si trans dem ak dikk daf si am solo bu baax so loolu diggante boobu nag bu dakkee si dakka bu nekkul sago because bii di sago dëgg dëgg ak boo ko élifee di nga am lu la jaaxal mhm. so di di di nga am tam lu doy loo xam ne dina la dina la mun na la jox sa problème so moo tax ma gis na démba uh, seen presse brief boobu noonu ñu ñu seen yaakaar tas ñu amul benn pexe foog nga jàkkaarloo askan bi wax ak ñoom te loolu leen def démb jàkkaarloo askan bi wax ak ñoom wax leen problème yi fa nekk. Mm-hmm. wane ne Kanilai te Kanilai sax in fact fu mu nekkoon noonu Amadou. Mm-hmm. du yomb bi boo boor yooyu noonu. Mm-hmm. poto poto la bi dafa dee bëri. te di moom féeri mu ngi faa gën a yàgg. bi mun na am mu ngi gën mun a toog. xam naa ne ñoo xam nañ time bu ndox bi di ñibbi si pour ñu am lu ko mun a xàcca. loolu tam xam nga ne mun na am du yomba. bi lu doon. féere bi lu ko tourné noonu loolu sax mun na see jëlee problème hmm. ba soo moytu loolu rek mun naa mun naa si féere bu nga xam ne ñu ngi doon try manage ko after Kunta Kinte rek moom mu dugg ak koo dinta dem because ñoom ñu ngey wax ne sax kanelaay boobu dañ ko bugg a ceeñ soppi machine yi fa nekk because machine yi fa ne hmm. dafa jafe affaire na xari affaire hmm. moo tax ñu bugg koo génne indil ko tegal ko machine yi nga xam ne ni seen mbir day yomb da ngaa gis ne xam na Euh, duñ si moytu yàqu-yàqu. te machine yooyu sax ñi ko buur waxee loolu tamit loolu machine yooyu ba léegi accès wuñ ci réew. waaw waaw ñu ngee ñëw. waaw ba léegi xamuñ. ñoom loolu leen waaw waaw waaw euh, xamuñ kan lay agsi. waaw tamit loolu beneen affaire la. xam nga su kunta dooree di daw ak lis mun na am. su fekkee ne dina wàññi presso bi dina wàññi presso bi. parce que kunta xam naa ne euh, su su paree. Mhm. waaye xam nga tam su pare mu amewaat yaakaar bi yëpp tam. waaw exactement sa óoru te Amadou machine sax moom machine machine rek la mhm. machine ak nit danaka soriwante wuñ fii da nga fay rombonté ay nit sax ñu nan la ki dara jotu na yoy fekka sax problème mu ngi ci biiram so yoy mu na see nek dem na ñew na moy dal taxaway bu rëy responsibility bu rëy len am bo xamna ni amatu amatu tok amatu dara uh-huh. parce que kon duma la ko waxe bu yag ciagante gi ak setan gi dafa xaw a du mbiri tey waaw definitely problème bu yag dembolo nu barki démbaloo te signal yi daf ko yaga joxe li yes daf ko yaga joxe bu ko so daan dégg ñu na terre na fele terna na na fele wala am ci tout awas ak yoy yeb ben loon am nga so baye xel nga dem nga tay na esaw man luma ci gëna jaal a jaaxal esaw soo moytu farafeñe la ñoo dem rifa naka lañ ko indé baara ah, dem definitely lo lo moy te te fo te amuñ dis euh, private gal yi nga xamna ni comme yu navy am wa di nga mëna jël yoy di di di indi ko so yoy bari yoon fexe navy japp ci lolu le bu ko so baye xel amna bu kinte amone problème amakanilay be amone na ben ko ambulance eboon mu ñàkk si ba kanam mm. but then manager mu ngi doon wax ne it was a critical condition rifa boo gis mu ngi si critical condition mm-hmm. for naa nit soo nekkul in critical ah. condition you don't te right now ku nekk ci jógee Farafeñ mm-hmm. war koo rifa te even Bansang dañ dee dañ dee indi bu leen ëppee loxo absolument waaye yooyu sax xëy na am na Transgambia mu ngi fa mm-hmm. but soo jógee Farafeñ o oh, Esso nga xam na ni Esso is very rare nga gis ñaar ñetti fiir yi dem te gisuloo ambulance bi si biir. so loolu is another problème bu nga xam na nii. moo tax xam naa ne war nañ mën a bàyyiwaat xel am yeneen gaal yi nga xam ne nii yu yemam mbay la. in case façon emergency la bu amee. waaye waaye waaw mën nañ dugguma la sax waaye hmm. Demba ku déglu buur foog ñu gërëm ko moom tamit ci Demba wax leeral yu mu indi. non non taxawaay kilifa la. waaw def nañ li Demba lim lim def. Hmm. ak lim leeral ci biir ferry service. kilifaay bu ñu ko déggee dañ ko war a déglu. dañ ko war a déglu parce que mhm. jàpp na ne problème mu ci biir. doxalin bi moom dafa fiil ne sax tey kunta kinte bu ñu demoon ba ñu indiwaat ko bu fekkee ne seen doxalin bi moom moo fa nekk dañuy wax rek waaye problème bi du fi jógee. non du fi jógee ama am nga dem maa ngi ko mu ngay wax. yow doo mun a dem nga jàng nu ñoo dawalee féeri. jàng nañu koo defaree. nga ñëw sol sa veste toog sa office. so nga ebal ko xamne ni kooku demu def course bu nga def mi bi sax yow mu dem course mo la mun. waaw te right now ñoom lañ sax xam nga bayel pan bu bu amoon si gel boobu be ambulance bi ku fa nekkon mu ñak bakana den la ne capitaine bi moom mujjee wacc gene mbal bi. wa dugg ci and that is normal. yeah it's not normal. it's not manager bi tok tok na fi admit lolu Oh? that was very an musna naa toog si marché bi sax ma gis benn jigen mu ko netali netali nettali man koku moy suma jëkkër. mu ne ma koku moy moy ñun man suma ma lu mu dee daj foofu ñun xam moom xam na ko ñoom bu ñu wàccee foofu dafaa nekk problème moom suma ma jëkkër moo wàccoon si suuf génnee mbaal bi maa ngi toog ak jaba xaw ma xaw ma ko woon sax hmm. mu ngi nettali ba ma dugg si wax bi mu ne man mooy pour moom ñi gis seen jëkkër yi sax c'est problème ah soo seetaan loolu am na ku responsable war a dugg si biir waaye dem koos ñëw taka nekk taay comme ni ko bur waxee defuloo sa liggéey ba pare ñi lay seetaan si loolu yow def man gisewuma mën ñooñu dañ def dara ki nga fayal ay million mu dem course nga ñew deful liggéeyam di baye apprenté ñi def wala ku doon dawal gal bi ñew la xarti lolu doro mën a ñëw sës manager bu mo fa jógee yow di nga ñew def ci liggéey o nga jógee fa wala nga ñëw mu nga noqa tok fofu nun ku doon def lolu mon ma ebal ko mom mu dem jangé ni nga jangé bu ñewé continuer ko parce que yene disappoint sa sa la disappoint sa rew la parce que fi nak rew mi mooy lu ma la wax fi mané lay mm-hmm. bu doon nit dana door ay domam yu bari te bu doon nit it léegi la mm-hmm parce que depuis 1965 waye doomam yi ñu ci bari defuñu ñu leen wara def ñu si bëri taxawuñ ko xam nga ne dafa ñaaw te bo démé ci secteur yu bari non la fa démé réew mi taxawu la jangal la fayal la sa jang ba nga ñew yow nga sétan réew moom lo réew moom an bari na réew mi bari na doomam yu def lool ta jagante gogu doomam yi di def lool mo ñu yobbo tay dis problème disasta bi ñu am mm, mm. an réew mi am ni Gambie yàgg daw ci fer depuis ñu ne féeri xank amon na fi féeri xànq xam nga ne ñun boobu ñun xalaat ne sax dina ñëw si àddina boobu ba léegi ñuy toog ba war a toog ak lis ak lis wan moon bu nga xam ne ni mm-hmm. duñ gis féeri bu baax bu fi daw loolu gàccale si Gambia te loolu ci jamono fu jamono toll jamono toll loolu gàccale si réew mi ak liis waroon na am extra féeri yi nga am ne ni mm-hmm. ak lu mun taxe ak lu mun ko joxee seetaan moo tax mu paan joxee lu mu gaare léegi léegi mu mut wan eer so ndax loolu waroon na nekk su fekkoon na tey defoon nañ si joxee li ñu si war a def tey mën na nek di di di raba raba digënté bi. hol hol engine si nga xamantene yoy lañ yoy lañ nek di oh, oh. dugal. xam nga tey ma laaj na yoy yi kañ lañ wax si lañ ko jënd. xam nga lolu is almost two years now. exactly because buñ doon joko ak den direct waw bu ko lu taxoon ñi joko ana ak mom moy bu ambulance bi ku ci nekkon gaañu. waw mun ñu joon te ñun waxuñ ñu leb de. def na Amadou mën naa ne order order order hmm. leb la. Hmm. dama la laajte rek ndax order leb la waaw li nga li nga jënd waaw parce que dañ ne order nañ six engine waaw loolu la ñu wax soo léegi order ndax fekkee ne nag yow da nga mun a leb order wala da ngay order mu ñëw nga door a fay nga indi three engine parce laajte naa ñu ne three yi leen jënd three yi jëndaguñ ko léegi ana ku ñu taxawoon di wax ne order nañ ñetti indi xanaa yow doo mun a dem si euh, dat company nu mu tuddati sa euh, dama dee fàtte turi compagnie boobu parce que ñoom ñoo indi woon kunta kinte fii waaw Canada doo fa mun a dem nga ne order nga fa six engine te yow fayloo leen xaalis mu te nga ne six engine yooyu dina agsi juun juun boobu delsi na ba delsiwaat soo léegi management bu jëlaat ñu ne ñett yi leen fay ñetti yi fayuñ ko léegi am na ku ñu waxoon na order na loolu te loolu fi la vidéo yi ñu ngi fi de loolu fii la ñu ngi ko wax de nañu order leen six engine yu nga xam ne incha allah juun dina agsi waxuñu ne leb nañ six engine Orang yang six engineering yang na fay engine ñett yi ñett yi dina ak si jun bu ñu waxoon loolu we can understand mhm. ba dañu ne order nañ six engine te six engine yow dina ak si jun loolu la ñuy waxoon ba six engine yi tri moo aksi si dañu ne tri yi leen fay fayuñ tri yi te aksi aksi boobu kañ la aksi kañ la aksi waaw ba tey ñu ne almost two years si loolu mu door a aksi si tambiru bu mu ñëwee yooyu leen buka leen bëgg a dugal si kanilaay léegi ana ñetti engine waji ko ñu ku ñu waxoon daf ko order daf ko leb wala lan parce que den yoy yooyu fayuñ ko ñett yi fay ñetti yi ñoo ñew yéeme na wa waaye non dafa loolu ëpp na yéeme mo moo tax moo tax ëpp na yéeme moo tax gis nga lo rek am nga li problème ñun nak mhm. lu ñu dal rek président adam Barrow moo ñu ko yobé bu ko do mëna a rew mu nga xamné lu neex nit mu def dem tok këram ta tigadu ci toj dara du xew démocratie te nag lu fi mais démocratie wat bul ma yaaxal suma programme foog ñu follow due process ak yooyu bul non bàyyi loolu bu ma indil ah, ay yooyu non non non non loolu soo ko indee rek nga nga yaaxal programme bi ah. gos lii ak démocratie is is démocratie ci biir biir féri lii si biir féri bi démba ah. démba den duggoon si si ron moo tax féri Amadou ndekete yow féri yow moo neexal si kaw rek waaye xamuloo lu ne si biir lu bari moo ci gis nga diggante si kaw ak si suuf mm-hmm. foofu àddina la engine si so ma gis fa nag engine waaw ñoo ne si suuf yi nga yii si kawam la nit ñi di ne dégg nga si kawam foofu la oto yi ñii yëpp di nekk so balaa ak luy nekk si biir ndox mi foofu lu am ni football field mu ngi fa so yii ñoo fa dee nekk Amadou ma fekk fa si ingénieur si fekk fa ay xale jigéen hmm. yu ndaw engines yi lañ nekk di fix right now. yi yi wala yi la ñoo génne non non yu ees yi la ñoo génne. waaw yi la ñu ngi leen a am nga yi foo engine la day am. waaw te am nga tri soo xa waaw yii moo ngi leen a defar. léegi léegi léegi bii la ñoo lii la ñoo génne. lii la génne man sa laajte naa lii fu moo jaar ñu si kaw fay ubbeeku. ok ma ne ah, loolu jaaxal na ma de waaye ma fekk fa ay xale jigéen. Mm-hmm. non ak foofu nu mu nu mu mel ma ne yéen moom Adama Barrow war na leen tapal médaille waaye nangu ñëw wax ñu ngay daw sax bu ko foofu nii nga de da nga day nii pour nga mën a dem ma ne waaw lu ma dégg ni baati jigéen la bu ko gis doo doo leen day gis dama taal suma ñu ne waaw ma ne non dëgg dëgg yéen war ngeen a ana bara war na leen war na leen seet tam gi nga ñooñu bu ñu amee woon bagage yi du yàqu hmm. waaye ñun ñun koreguñ góor yi koreguñ lu yàqu si réew mi yëpp ñun ñoo ko yàq te gis nga ñuy def liggéey bi yëpp ñooñu daanaka moom pour ñu gis seen ay jaxaay ndaw ingénieur yi ñoo nekk si biir ak góor ñi di liggéey liggéey bu nga xam ne nii soo fa fekkee loolu nga dem fekk jigéen bu ñu def dayreto wala nangam mu nongorool si office am. Mhm. fekk li kii di jëriñ réew mi yow def mooy mbir mi. moo tax dix people dañ leen war di génne si nit ñi takkal leen defal leen dara. pour nit ñi mun a copie si ñoom. ñii ñii kenn du wax seen affaire xale jigéen ñi nga xam na les dan ñooñu am naa ne 20 years bi su passé. sa loolu kenn du wax seen affaire. non lu lu dañ koy muñ. dund kenn du leen jooyal. yes kenn du leen jàmbataan te fekk liggéey bi yëpp technicalities yi ñoom ñoo koy def. ñi si doon fi mën a léegi ah. nag yéen dafa tàng de. ma ne leen yéen yéen mu ne afta sax mu ne ni fële itam beneen space la jaxaa bi ñaari jaxaa yi ñoo ñu doon wallul mu ne ko yéen fii ngeen dee nekk mu ne mu woo sa paas génn féeri du caaxaan de mm. féeri du caaxaan war nañ ko toppatoo bu baax moo tax gars yi war koo toppatoo non soo duggee si ron rek nga xam ne lii dafa am yow si beneen wool nga dee nekk dafa mel ni nekkatuloo biir bàgg mm-hmm. yaa ngi si beneen wool beneen réew da ngaa fan ne si beneen dëkk nga nekka soo loolu na nga fekk fa ay ñuy ñafe pour loolu mu baax na nga fekk fa xale jigéen ñi ndaw ñoo xam ne tey ñi ngi warona nek ci si leneen nekkuñ fa. gis nga lii nii yëpp ñooñu management bi dañ leen wara a. waaw wa li ci si fu nit yi di tok la. wa ñu ngi koo peintre. ñu ngi koy daal bu ko non liggéey bi mom ap daf final li liggéey bi. Mhm. mu ngi bar ñaari team la. waaw guddé ak suba ak bëccëg ak ngoon. 24 hours. Mhm. liggéey bi mom mu ngi on. ok bot dan nañu am nga li fokk mu on ni mhm. waaye Amadou Amadou Amadou ci nekkoon Li defon nañ ko daw defon ko daw jek li duñu ci fekkante. wa léegi lan moo tax ko non da nga liggéey li ak sago Mm. waaye tey liggéey bi nekkul sago. déedéet lii du sago. te te te ifin bu ñu fa nekkoon fa ñu ngi fa 24 hours. Mm-hmm. ba lu ñu ko indee. waaw lu ñu waroon a def barki démb. def ko démb. defuñ ko moo tax ñu bëgg koo def tey. Ah, soo boolee yooyu yëpp moo la dee indil 24 hours. ñu koy def ci anam bi nga xamante daanaka yàkkamti la. yàkkamti la te sax manager bi démb mu ngi ko wax tambeer bi. mu ne ñoo sax liggéey liggéey bi nga xamante ne tamit dina doon liggéey bi nga xamante ne liggéey gaawanta gaawantu la ba pare buñ ci dellusiwaat rek problème yi di soog a ñëwaat. moo tax am naa ne dinañ ko avoid jël seen time waaw te a dafa a am site yi yàqu woon. waaye lu ma gis ñi commencé ko wel te si kanam bi fu dee mbokk noonu. Mm-hmm. xam nga foofu demoon na ba yëpp yàqu. foofu defar nañ ko bu nga xam ne nii defe nañ li defar bu boo ko gisee nga xam ne am na solo bu baax mm-hmm. second li moy xoos yi na gaay ngay peindre but major problème yi xëy na indi machine yi man bo moy suma major parce la ci na gaay yeen machine yi fu mo jaar ba dugg wa ñoom xam nañ waaw ñu ma non eh, dafa ku amna fu ubé ku machine yi dugg wa xam nañ bu ko machine bi walé wut ak lool xam nga rek bo xamuté yoy bo fu mm. duggé da ngay war yow mm. bu ko yow fofu amaloon ifin ba seen yi bu ko so sëggu da ngaa wéñi wéñi fu nga sëgga ay yoon yoon ni la am mm. fu mu inji soo moo tax daal ñi nga xam ne dem neen jàngi réew mi fayal leen ferry service fayal leen nañ dem war a dugg foofu liggéey. Oh. mënuñ ko ñu génnee foofu noonu ñeneen ñëw. management bi moo war a futti moo a. waaw tànk tubéyam si loolu. moo a wax ne di honest la right now ci loxo general manager bi moo war a xoolal système. of course mu because moom lañ dénk responsibility. tey coow lu mu bëri bëri bëri overall nga war a sol gaal bi buy ah. dem dañu war a dañ fa war a nekk. dañ war a nekk for any ah, eventuality. loolu moom laa waxal ne nekku for any eventuality ñoom ñu taxaw ci. waaye foo ma manager bu la ne ne. Ah. capitaine bi moo wàcce ñëw. léegi ana ñu ko train. dafa war a am ñu nekk night. walla wala afternoon nga am na ferry bi time boobu noonu ay ten o'clock eleven la day jógee baara wàcce neen nga dem ñibbi. am ñu nekk juuti si yooyu taxaw di xoole. ba pare sa su paagee ñi dem seetaat maintenant si guddi gu yooyu. waaye yow yow yow ñi defal la li la war a defal yëpp. nga ñëw toog toog si office amuloo sax uniforme xale yi ñoo fa liggéey wóor na ma ñoo ñooy donki job bi yëpp ñi ñëw apprenti ñoo koy def den kuñ réew mi fayal mu dem jàng kuy gën a fayeeku salaire bu bari moom mu ngi toog këram bu wàccee dem bàyyi fa nag ay xale yi nga xam ne ni ñooñu la ma wax ne ñoo la ko réew mi loolu mooy problème jiini yooyu si ñooy dee sini yi di dund an loolu correct bu ko wax naa la ne boo nekkee si mbaar xalaatal banta yi ko téye yooyu soo ko toppatoo bu resee si sa kaw lay res doo mucc ah. bant yooyu mooy jiin yooyu si ndey ebal si service bi si anything si lu munta nekk Gambia jiin yow mooy mbaam mooy jaam te ñu bari ci ñoom bu ñëwee dañooy jéem a fexe ñi nga xamante ñoom ñoo leen di déggal ñu am seen kabudu ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di dégg defal luñ luñ bugga ñu ànd ak ñooñu. ñu ànd ak ñooñu weddi leen te ñooñu luñ def baax na. waaw luñ def baax na façon yi liggéey boobu. loolu dafay dafay am répercussion. dafa lii mooy fii façon yii rek la mun a indi. loolu mooy suñ problème ak loolu parce que seetaan bi dafay yàgg. dafay ñoom ñoo war a taxawee yenn responsabilité buñ ko defut at the end of lu mel nii moom mooy am. mu jeex so imagine lu ma laa lay mooy am na fu nga xam ne dañ ko liggéey rek. Mm-hmm. pour gaal bu am problème wala féeri bu am problème gars yi ñu ne depuis 19 xaw ma 82 83 mu ngi fa. tey si loolu pare woon. Mhm. Kanilaay bu ñëwee mun na faa def nongu ñu commencé liggéey. ba loolu parewul te loolu ñu ngi wax ne den manager bu fa nekkoon is order na trail si. fu mu war a dugg nga xam ne dañ ko yóbbu ba si ndox bi. féer bi egg ñu mañuweel ko ndànk mu ñëw. Mhm. amul dara lu si nit di di jël risque. waaw ba pour ma xamal la sambra yi jël nii sax. ina yi pompe ko ba mu fees jëlee ko gaal bi xam nga ne lu jël ngelaw lu ne mën na te te te mon na gis nga génnee feri nii Tambédou mu ngi koo wat démb te buur sax waxaat na ko a am depuis 2017 Kunta Kinte mu ngi ko a génnee director yu nekk port xaw ma jiiba bi nga wax mu doon am problème fa nekkee moom si la si la si lay mujjee si lañ géjee génnee feri pour maintenance ko te feri nii yëpp jamono yooyu ñoom joxe yi nga doon wax buñ leen maintenance si jamono lañ doon daw time bu ñu am problème ni parce que maintenance boobu moom moo doon am maintenance yooyu maintenance ferry bu nga ne dina la yóbbu ay xat toppatoo ko toppatoo léegi ferry boobu noonu ñu ne euh, euh, ku fa nekkoon jiiba moo indi woon odo woon ñu ngi leen baas yëpp amado teg leen fa we ñi nga na nii dafa war a daw ba si biir ndox bi ferry bi daf koy lonku rek am na machine bu nekk si biir machine boobu nga day dem mañu mañuwal nii rek muy ñoddi ferry bi xale bu ndaw sax mun na ko ba fi nga ko soxla jàkk ko ñu dem def liggéey bu ñu ci war a def yépp naka la daayira tuddi indee bagage yooyu ba léegi bagage yooyu mu ngi tegee deferuñ ko ba tey lu ñu génnee féeri bi dañ ko luwaa si bagage yooyu te wax naa ne luy jël ngelaw te loolu risque la parce lépp luy jël ngelaw mun nay toj amul garanti luy jël ngelaw ne kenn mënu laa garanti ne du toj te tey am na sa yeneen journaliste ma waaw ñu naka la li li risque la nuñ jaagee banta yi naka la fa nekkee man ah xam nga ne lii nit mënu ko ekkati ma woon ko ma ne ko gis nga baag yi ni yo leen dee pompe mo dee enu affaire bi buñ ko bu ko enoon nak si leen doora ñew kal ko ak banti yi ko mu tok ci ko bant yi ne ma o oh, ok ma ne ko non la fa dee demee ta baag yi ñun moomuñ ko de dañ ko rent te am nañ lu nga xam ni so mo moytu ifin gaal yi bari nekk fi sax mun neen yuus loolu noonu mm-hmm. garage garage yi gaal yooyu noonu ñëw buñ ko deferoon bot ñing la laa depuis 1983 doxul jiba gis na lol du yon mu indi tréla ci odo ko yeb ñu ko basé Amadou lan moy njëriñam bi bo démé fofu ay wéñ ñun basé rek so si ban rew leen nek Amadou rew mu nga xam ne ne ñëpp dañuy seetaan si ban rew la mm-hmm. dafa yéme te loolu suñu ko défaron tay da gis touriste ci sax nga ku ñu am gal garage la rek bo ñëwee ñi égal la ñi défar nga fay dafa dugalal gaay dara so yeneen ku ci pan nga ñëw égal la ñi pan mm-hmm. ko doon tay ñun ñaari féeri mun nañ ndor mm-hmm. ñi leen défar benn bi di dem waaye fu ne ni foog nga xaar bële wàcca kanilaay ñëwaat éeg te nag bu fekkee ne bagage yi ñu éegalee kanilaay dañ ko luwaas xam nga kon kanilaay kunta si génnee kanilaay dafa war a ñëwaat mm. kon loolu luwaas boobu delloo guñ ko kon eh. foog ñu ko mm. loolu dafa cost xaalis bu bëri eh, lifin bi mm. soo moo tax fu ñoo defaree gaal garage yi gaal yi weñ yaa ngi fa bagage yëpp ñu ngi fa gars yi dañ war a gaaw defer ko nuñ ko war a deferee parce que soo fa demee nuñ ko deferoon sa bu yàgg ya weñ ñu ñu ngi xoomaak waaye yu waaj a indi léegi loolu ay weñ la te loolu moo gën a méngoog jamono. soo xam nga liy war a dem na ñëw na daal li war a def réew mi li ñu war a def leen deful. non xam nga loolu moo tax saa yi am problème. waaw li machine bi nga xamante ne wala ferry bi nga xamante ne boo every two years daanaka dafa war a dem service. nga toog fa seven good years. seven loo ko loolu c'est loolu lu ci am yaa tooñ sa ba pare biir seven good years yooyu. mu ngi laa jox signal mu ngi laa jox signal. mu ngi laa problème parce que yow loo am ferry mu am problème fanaan si géej ba ambulance ne fa. kooku ñàkk bakkanam yow mënuloo gaare ferry boobu nga defar ko. loolu rek risine la pour nga defar ko. ak yeneen ak yeneen di war a teer into one hour yóbbu four hours. Mm-hmm. teer ne ko problème loolu war nga xam ne c'est problème. xam nga démbat buur mu ngi ko wax mën nañu soo defee li nga war a def ci anam xamante ne eh, noonu la war a demee daanaka sax nit ñi dañuy understand nee na fii am na time bi ñu doon defal landasi eh, comme daanaka ferry dawul daanaka one week. waaw waaye dañ communiqué rek askan bi wax leen ne lii mooy situation bi. ñëpp understand. Mm-hmm. kon situation bi demeewul comme ni mu demee nii ba right now lii. lii xew dañ dañ toog càgganteef am. yes ba lii moom mu am. loolu parce am na ñi nga xamante ne li ñu war a def defuñ ko yóbbee askan bi jafe-jafe yu mel nii. loolu mu nekk lu lu doy waar. bu ñoo defar raam si bu ñoo defar nga bu ñoo defar raam si. waaw waroon na mun a ànd ak sa ifin seetaale condition yi fi. parce que time boo demu donte le sax. amoon na ci pa maintenance yi ñu fi def waaye soo bàyyee. waaw mais bi time boobu comme maintenance bu mu am nii amul mm-hmm. koon. exactly amul koon. exactly. Ah. so because so mang don jema so so hole sa economy bari lu mo cost rew mi lu bari la waxuma la sax lu feri sabi sen bop lu ñoy ñak lolou leneen la bo tay ñi nga xamantene ay businessman nek digënté not bank wara ñoo banjul every day on daily basis ñi nga xamantene ñu transport ñi nga xamantene tay ñima wuñ gal ak lu munta xew duñ duñ xalaat ko sax lo capitaine bobu doon wax mom amna ñu moy eb bu doon wayjurum du leen eb ko mu nga mu la wax gos am na lu mu doon ñun dee gis ñu ngi toogee nu ñu toogee si gaal gi mm-hmm. xalaatul way juróom mu toogee ko ba ah. pexe amut bu moom way juróom du ko mu dugg si gaal daf ko mu dem ba pexe amut fu ne gaal yi ñoo fa sës am na ñi nga xamante ne moom ñang gaal yi ñoo euh, fa sës daf leen di jaral sax duñ ñëw Banjul bi affaire yi baax waaye duñ jël gaal non am na ñu ko def am na ñi nga xamante ne tamit di same thing waaye am na ki nga xam léegi ñaata moto yi nga xamante ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi toog baara war a dem Amdalaay war a dem Kaarang war a dem Farafeñe war a dem noonu ba wasu Kunta di nga xamante ne féri bi leen dee xaar. waaw ah, yow Amadou ba léegi nag ki moto bi ne si féri bi nag. exactly loolu moom waxi noppi. kooku moom mii bi mu doon war a dem Sénégal o mun doon war a dem feneen. waaw kooku naka naka la. ba léegi mënuñoo bagage ñi yaa fa. Ah, non bagage yi mun a wàcc moom wàcc na lu yu diis yaa fa des. lu mën wàcc moto yi. moto saygul sax wàcce nañ leen waaye moto yi ñoom ñu fa. amna sécurité parce que dégg navy bi ñu fa am nga lolu mom kenn duko ko laal. bu ko sécurité dina am. nak nag ñu am nañ seen tardement naka la ñoo mujjé ak ñooñu itam. waaw lolu ah? lolu loolu naka la ñoo mujjé ñooñu. lu yéme la. lu yéme la. mu ngi nonu dem na ñew na dal moy taxaway dafa wara amaat ci mbir mi. te féeri moom duñu ñoom duñu ritoon de. Ah? ñom nu munta démé return mom duñ la ko def. ah pour delloo la paas nii. waaw déedéet ñoom. borom moto yi mom ñom du koy duñ return borom moto yi mom luñ luñ laaj. dañ leen ko war a leen ko war a delloo parce que ñoom ñoo leen dugal ci problème bu ñu nekk. absolument ñaata fan yow sa moto bi moo ngay yow sa nga dem def sa business ñëw ñu teg ko foofu noonu mënuñ koo génne loolu c'est problème. te loolu xam naa itam. léegi nag xam naa ko xam naa de pour mu génn ñaax tamit nit ñi ñu gën a am patience parce que lii moo fi sës. waaw raay naaw moom kenn mënu ci def dara mhm. ñaax nañ askan bi moo tax ñoom tamit ñu génn joxe update gis ngeen liggéey bi liggéey bi mucc ayib comme moo ñam ni mu ko waxee moom moo nekk di am ci ci ferry bi ñu gërëm leen tamit mais bi ci initiative bi nga xamante ne because euh, buur mu ngi wax ne tamit ministre bi you know bokk na ci ñi gën a forcé ba tey ñu mun a génnee ferry bi ci biti liggéey bi tàmbali ànd ci ak ak ki nga xamante ne moom mooy di général manager léegi ñu ne kan moo gën a forcé na ci taxawaay bu am Amadou fii koo fi gis yëpp a tardé. ñëpp den deful li ñu war a def tardé moom loolu moom koy waxtu waaye xam nga si li a def. waaw léegi wax naa la du problème yi démba. problème yi barki démba la. waaw waaye xam nga. dégg nga waaw problème yi démb. Mhm. ministre bi ki démb fekk ko fi waaye démb fekk na ko fi. waaw moo tax tey mu mu forcé li. waaw lu tax démb waaye démba. xam nga moom xam nga problème bu am ñoom ñëpp olof dem waaye démba. barki te ñoom ñëpp ku fi barki démb fekkut démba fekk na la fi. non li fi moom soo waaye démba. waaw defuloo ko. waaye tey mu metti tey. kon yow ñi ñu indil problème bi si nga bokk. waaw non fi may waxee mooy. ci ni mu ko waxee mooy fii na ne comme laay su fekkoo def exemple. génne wuñ kuntakinte ba ba léegi. courant def li li daal lii moo ñuy daal rek. waaw loolu laa waaye courant mbir mi daf doon gën a garaw. of course a garaw waaw exactly moom xëj na ñu génne ko parce que dafa tolloon ci période bi nga xamante ne dafa fiil ne waruñoo nekk di di di di di di di. di maslaa nii rek di raay raay affaire yi foog liggéey am foog ñu ah, jël dat move mm-hmm. soo si la nag mu dem ba initier sax ay whatsapp groupe pour ñoom ñu nekk xam nga li problème bu ko bu ñu ko génnee ñu ne soo waaye ko doon am gaal bu fa nekkoon waaw fu mu war a duggee gars yi den force ñu ñu dog gaal pour kii mun a ñëw euh, kunta mun a dugga bu ko te foofu sax waruñoo alaaw sax dat féeraay gaal yooyu dafa nekk bu ko emergency mun na am seen féer yi soo loolu tardeel na sax mun na maanaam mun na am tardé na si liggéey bi one or two weeks moo tax ministre bi doon coow noonu pour pour ferry bi dafa am pour éeg kon fu mu war a jaaree éeg gaal yi ñu ngi gaal yi ñu ngi foofu yooyu leen dog ferraille te mooy bato yi de eb bagage yi daanaka soo loolu ñu ngi ko ñeeka di dog ferraille dog ko ba ubbil ko yoon foofu la kunta mun a jaar ñu door mun a egg service bi commencé non c'est collective responsibility na ñëw na Amadou mooy foog président Adama Barrow jël responsabilité maa ngi la ko nga is démocratie ba hmm. daf si am lu nga xam ne koy régler sa bopp démocratie mooy lan ngay def lu méngoo yoon naa loolu mooy démocratie doxal si yoon hmm. jaar yoon. non am na li ma la wax. ñun dañu am na si lu nga xam ne jarut jarut investigate nit bu ñëwee ne lan. maa def lii jaratu suspect loolu suspect nekkatu fa loi yooyu leen war a génne <laughs> man maa def lii nga naan di suspect di suspect di suspect di suspect what suspect daf ko jarati diw la diw mu ne la man la la see tuddee tey suspect waaw lan la wala di di alej loolu leen fay nekk di wax di di baat yi tappale yooyu di sonal nit ñi rek yoon moom mun a yow la am déet waaye bu bu dee man la nag bu ko def na bu ne man la wax loolu leneen la ku ko def bu ne man la loolu dafa amatul aleg aleg nangam suspect nangam aleg nangam rek leen fi nekkee di wax lu dëgg di yoon loolu leen war a génnee réew mi Adama Barrow xam na ñuy am xam na ñuy liggéey xam nañu liggéeyut ok ku liggéeyut na ko fi génnee parce que problème bi lu fi mun ta yàqu si mom mom la leen koy tek si mom leen koy bloqué de. all right loolu mooy mbir mi coow parce que ñepp fu nekk ni nguur gi la ñew parce que du problème yi démb yi leen nekk di wax. li def fi yag depuis mom mu ñew fi lu bari def fi yàqu. te mu ngi sétane ñuko fi yàq ñi nekk fa ñom definitely bu ci from du fekkee si ministre la aussi daire lu nta nekk. mom mm. mu ngi sétane lolu mu ngi dem. Ah, unfortunate unfortunate. seetal tay ministre so demee ci ministre of health yi. Mm. bagage yang fa jóoree problème yi du jeex ba waaye foog na ne kooku tey Gambien si moo fi gën moo fi gën a mën a def ministre mm. te yow li nga jiite dara baaxut fi alright léegi léegi ñu desandi ak ferry service waaye dañuy continuer tuuti rek parce que ci wàllum li nga xamante ne mooy option bu fi des mooy gaal yi tamit kaaraange gi dafay doon lu am solo mooy moo tax ñu war cee parce que démba ñi nga xamante ne mooy euh, Gambia Navy dem leen euh, ñëw euh, dimbale leen ak li nga xamante ne moom mooy ay ay ay life saving jacket yóbbul leen ko pour ñu Euh, mun na li nga xamante ne moom mooy euh, yokku kaaraange gi parce que tamit ñu ngi eb jamono ji nit ñi gaal bi gaal yi lañ yaakaare diggante ba Banjul ak Baarab tax na nag ñoom ñu am def ci taxawaay bu am solo ni ki démba euh, bu ñu demee ki nga xamante ne mooy Major Fara Diop commandant Navy camp bi foofu ci Banjul shipyard bi moom moo dal di joxe li nga xamante ne mooy ay junne life saving jacket ci ci board ci jox ko ferry service ki tamit ki nga xamantene moy Omar Bour Touré mom moko receive sen on, on, on their behalf euh, ñom ñaar ku nekk garal ne ci ay cadeau ñu anda deglu lolu dañ su ko defé nak ñu def ci jangat tuti ta ñoo wey ci ci leneen ñu deglu leen ñom ñom ñaar euh ñu ngi wax ni yow tam nga gëna sani sa cadeau pour ñi nga xamne tamit ñoo amé gal yi ñoo xamne bakkan yi askan wi la ep nañ defante ñom danka tolof tolof mo am li neexul kenn li nekk fii moo nekk baara baara sax la moo gën daw yaram in the morning time because ñi war a ñëw liggéey si xale yi ñëw dem war a school ñi war a ñëw tamit bu def seen transaction kon li life jacket la about one thousand yoo xam ne mu ngi jóge si gambie Maritime dégg nañ ci media yi yu bëri yéen a wax affaire life jacket ne is costing about four hundred plus so ndax yéen mun ngeen koo rescue waaye liñ soxla mooy lii ngeen muy good use of it passengers yi ñoo ko moom Yen du pour yen yen da ngeen ko war a garder rek moo meeg soo passenger boo xam mu ngi on board rek mu sol ko so kon ñu ngi ñaan di wax rek ne ngir mande gi mooy ngeen góorgóorlu ba lii duñ fi am benn disaster boo xam ne ñaanuñ ko yàlla yen def ndanka ku war a eb ten passengers nga eb ku war a eb fifty nga eb ku war am mun ngeen ko wàññi sax limitation su fekkee ni fifty nga war a eb nga wàññi ko top forty foog naa fo security concern tamit loolu tamit dafa am solo ñuy ñaan navy bi ak police ak everybody ko xam ne in charge nga jema def sa juti ak yeen ñi nga ne chef de garage euh so gisee ma wax alkali bara yeen yene kilifa yi digante Banjul ak bara ci gal yu ndaw yi kon yeen am ngeen ci responsibility bo xam ne di ngeen jël seen i ndaw sax ñu jema taxaw pour nguur gi tamit lepp lo ñu ko taxaw pour rescue situation bi ñu def ko num gëna gaawé di ñaan yalla ñu tok be féer di tomba di daw ñu fatale ko li although xam nañ ne seen traite seen traite la waaye traite bi tamit méeg leen good use ne bu leen fa def loo xam ne waru leen koo def képp koo xam ne tamit sa gaal nekkut ine correctement na na nga ko defaraat wala gars yi inspection team bi ñu seet gaal yëpp boo xam ni rek mu ngi am problème wala daf dee jël ndox ñu génne ko si service bi. borom gaal yi ñoo war a am seen life jacket den nga mun a eb passengers waaye léegi su fekkee ne nag institution yi ñëw nañ ba joxe lii ndimbal la. waaye ñun tamit suñu liggéey lu ko jafeel mooy gis nga sole mu ne yóbbu caméra bi right now si gaal bii di wàccee gaal bii di wàccee right now suñ la waxalee dañoo wone life jacket bi dama ko sumi bi gaal gi egsi life jacket da nga ko war a sol ba gis nga suñ la wàccee nga hand over life jacket bi waaye right now kenn defu ko luy problème bi mooy nit ñi ci seen boppa dañ leen a wax nga sol life jacket mais bi yaa ngi sol lu set nga ne déedéet life jacket bi yow doo ko mun a sol dafa tooy gaal yi ñu am nii seetal niñ ko dee ebee rek amut fen foo xam ne di nga fa mun a dencal life jacket bi te du tooy façon gaal yi lañ am waaye di nga gis ne yow sooy ñëw nga xam ne da ngaa jaalee gaal yi nii nangu la sol life jacket nga seef moo gën a am solo nga tooy tooy bi nga bañ noonu soo soo rëccee si mi foog nga tooy te mun nga see ñàkk sa bakken mun nga see jëlee leneen soo balaa caag solal life jacket bi waaye da ngaa gis ne dañ koo sol ba gaal gi dem ba sori na suñ gars yi taxaw fii di leen seen ñu sumi life jacket loolu du ñu mun a dimbale Gambian si nañ comply ñu sol life jacket loolu su amee rek dina yombalal ñëpp seen liggéey waaw ci affaire yi overloading ak yooyu tam gars yi dañ ko dee check dinañ seet gaal yi li mu war a eb liñ fi advice loolu la su fekkee ne yow sa gaal 50 la daan eb waaye because of situation bi and the demand to cross bul seet ne rek di demand to cross mooy ne kon dañ war a adjust nomba bi déedéet bugga ngaa dem waaye nañ wàññi ñu reduce because gaal yi comme soo doon dem 5 6 times si diggante bi mais bi di nga dem close to 10 times si diggante bi soo liggéey bi endurance si gaal bi sax diisaay bu moo eb continuously loolu risque la xamuloo lan lam nekk di wàññi si intégrité gaal bi soo moo tax war ngaa reduce load bi waaye ñii ñi suñ leen ko wax ñoom déedéet am na ñoo xam ne nag ñu ngee try waaye am na ñoo xam ne ñoom xaalis bi rek lañ si toppa modon adunonun, non nek commandant eh, navy camp fofu ci banjul sipiat eh, gis ngeen Gambia maritime ñu def lu am solo eh, ñew jébbal ñi nga xamantene moy borom bor ci fofu ci banjul ñuy daw digante banjul ak bara 1000 life jackets lolu mu nek li nga xamantene mom moy lu am solo parce que tamit deba sax gene nañ tamit statement di gëna ñaax ñi nga xamantene moy borom bor ci ñu samwante ak sarta yi nga xamantene lolu la seen doxalin bi nangu ñu baña be diesel wala opal ci li nga xamanteni eh, ci client ñoo eb parce que tamit ñom ñoo fa sess rek nit ñi bari nañ nga bëgg profito eh, eb gal bi nga xamanteni lu attanu dem be ci biir tamit leneen mëna ci am té loolu tamit ñom war nañ ci baye xel motax ñu gëna ñaax ñom tamit ñu gën ci taxaw monitor process bi comme bour nu ko waxe nit ñi bari nañ situation mom mo am té tamit eh, nit ñi war nañ ci gëna baye xel mon nak yang fa won tamit fokk naa ne dafa am solo pour li nga xamanteni def nañ ko parce que nit ñi dañu am responsibility tamit ñu baña sétan rek nit ñi def lu leen jërëjëf Amadou lu am am solo la mbir si Friday bi ak Saturday bi yëpp mhm. borom gaal yi seen boobu ñu ngi doon jàmbat ah, problème yi life jege juste Friday mhm. chef de garage yi gaal yi foofu noonu bi ay Fall Ndour ñoom ñëpp dëggaloon nañ ni life jege di matul mhm. so ñu toog gis ñi jox te ñu ne benn five hundred dalasi ñu indi leen si junne kon taxawaay boobu foog ñu rafetlu ko waaye dinañ si gërëm bu baax euh, CDS. Mhm. Euh, Lieutenant General. moom Thiam. because ak gërëm ci tam ni waa Navy yi. because def neen gesto bu ama am solo. Mhm. parce que indi neen mbir si time am ak fu ñu ko soxlaa. Mhm. soo indi junne pieces par live jege junne. jox ko nit ñi ñu sol ko loolu dafa am njëriñ. ba méjoo jóg dafa wàllu am solo. nit ñi tam dañu xam problème amat te any emergency bu fi amee. ñi bëgg ci kën nguur gi dem foog ñu wax foog ñu wax munu munu foog ñu wax dëgg bi nak na nguur gi ni wu fi live jege bëgg at the same time ñi ngi yoxu ne nañ leen dimbalé si live jege légui junne ñëw na donte doy doyit sax waaye junne ak plus li nga amone lool lool buñ ko contrôler du dem ba lu nekkut yoon moy ne walal gal yi fi nekk di wacc image yi démb la xëy na balaa ñëw mun nga wax né live di ñëwuñ doon mm-hmm. But live jacket bi ñu jup gal bi ni sax yow nga am na ñu ndox musa sax boo si bo sëlmu loo ëpp sax soo moytu nga xum mm-hmm. xaaral ba wàcc nga simmi ko parce que nga simmi ko joxe ko. soo borom gaal itam ñu fexe am saako bu nga xam ne ni life jacket bi du tooy man de man life jacket bu yeboo mu tooy xëpp lu ma sol waaye man man dama lu mu tooy tooy dinaa ko sol parce que nga tooyaale ak life jacket moo gën doo tooy ànd ak life life jacket. Mm. si biir wàcc boobu noonu soo fi ne pindim sax mun na laa sonal soo solo life jacket bi toog bañ enu la wàccee la nga simmi ko am na ko koy collège si yow waaye ñu jub ko soo mitas nga lifin te fu boo fa daanoo bu yéex am dimbal de jarut ko. kon ñun tam Gambien si den dëgër bopp. jikko yi jikko yi. fu ñu dem wane ko ah fu wane ko. waaw soo léegi nag amoon na live jafe yu gën a doy ku eh, néew yi ñoom ñoo amee mbiri ndox mi indi neen junne te ñu ngeen ñaan sax ñeneen ñu yokk ñoo xam ne ne mun neen a yokkal gars yi ñu des na another three weeks. Mm-hmm. pour kunta mu a dawaat. soo loolu du caaxaan. definitely lu ne mun na ci mun na see de. soo nag na yokk ñi mi wegsoo ne lu ñu doon jàmbat five hundred am na ñu leen ko indil may leen ko xam nga five hundred soo ko times ba mu du junne loolu du xaalis mu ndaw de. support tam nañoo support leen in that waaye suñu leen supporté ñu make sure ne everybody jar na everybody da ngaa make sure ne. sol life jacket war a nekk soo ko defut buñ la gisee si gaal gi nga ñëw simi ko ñu caaj la balaa nga faa jógee. parce que lii problème bi nguur pour mu xaar sa bakkan daf koo jaral ba moom mu caaj la si. Mm, mm. tey tey borom wax naa benn waay kerek mu ne waaye yow ñun helmet yi loolu nit la ma ne ko yow alal sa kaaraange nguur moo ko amee. Mm-hmm. soo gisee police yi taxaw di la way helmet xam nga du police bi si boppam. bët moo amee sa kaaraange moo amee sa alal pour mu sàmm ko mm-hmm. moo tax tey sax mu dem ba yow mm-hmm. li nga war a def pour nga séef soo ko deful mu caaj la si daan la mu daan la si loolu yëpp pour séef la soo loolu nag loolu la moo si war mm-hmm. live nit ñi dem den war a génnee seen dëgër bopp gi du sol live jacket xam nga den xem bub moom te itam live jacket boo ko solee gawloo ko amul njëriñ boo fi tiitee ne nii mun a lafar si sa mbagg yi donc koy tëj yi ees mu ngi am zip tëj ko am na buum yi ne nga takk ko bam na dara nga toog moo gën a waaw téye si borom mbaar mi nag. Hmm. lu mu dogal nga xam ne loolu la. waaw ah, bu ko 24 hours live jege mun na laa safe bu emergency amee. 24 hmm. hours lu balaa loolu. di am risque dina am lu mun a ñëw dimbale la. Ah, waaye ngay ñëw di sol comme ni ma ko wooyee rek xam nga xaftaan bu reget oo oh, daggit bu nice nga ne doo fa teg live jege dafa tooy what is that condition la war a nekk balaa gaal gi di move ñu meq soo hmm, kenn ku dee everybody. te navy bi au fiança bi dafa war a egg si boot bi balaa moo départ bu mm. gis ne everybody yu weyaay am ba pare zip nga ko mu muuf si biir ku ko génnee capitaine mu ñëw mu leen kii dafa génne ñi caaj ko mu fay bu ñu ko defee nit ñi bu ko gambien bi I don't know which ñin ban façon ñi nit leen ñun tam sometimes yéeme na ñu naxaree ah, jiite leen ñu naxaree naxaree jiite leen ñu naxaree dimbale leen fii leen doon nekk di jàmb léegi nag junne dem na ñu ngi si jaajëfal lieutenant general bu ko si mom la jógee. Mamad hmm. ah, Cham, dem si Navy ñu ñam jabotam leen Navy Tam, yenn ko ñu jox ko Ferry ferry war nañ def li ñom itam moo tax ko ferry li ño waron a njëkk joxe kon moy tam ngay xamne ne nit ñi ak lis am nañuy baye xal xel mi. Hmm. dëgg dëgg parce que so gisé jamono bi ñu indi lolu jox ko Navy mu joxe ko kon ñu ngay baye xal réew So ñom soo ñu ngi leen di ci taxaway bi am solo wa ñom ñom ñoom ñoo ne ndox mi ñoomi nak seen gal gogu di farara di dem na ne si bi di bàyyi xel gal yi dem bañja ko ñew mhm. stand by parce que ñun suñu gaay fi fii ndox sël moom naan rek leen ci man mo ci gëna bari de mo ci gëna bari fi seul sël naan rek leen ci man mhm. pacam pacam ji bii am mo ñun paré nañ ci so daf stand by bu am solo fi léegi balaa yi di wacce di leen bàyyi xel di leen néméku di leen xerewlu Any emergency ñi gis ne tel na mëna am lu gos da ngay su aduna da ngay suuraale amul mhm. boy tal sa moto takabel lu tax nga takk ko am safe. looy siif pour kaalaay booy euh, yeah lenen boy dawal sala nga sol helmet xam nga lu te pour sa bop pour sa bop comme li nga wax nak way boko sax amna amna amna lenen loy ci lila ci meuna of course waaw foog bu melni comme ni nga ko gisee nii la wara demé ni la wara demé wa way tamit nit ñi ñew dama oh. ay feel ne like lu lu wara am sax dañ ko wara def et eh, loi pas receive tam ñu ko receive war ko mhm. man ñu ko receive tam amul jaay de li is free yen ñee na ko moom garage borom garage mhm. gaal bu nekk bu ñu naan fifty fifty ngaa jox nañ la fifty. waaw nga make sure fifty boobu is on recording. exactly. da nga koo da nga koo ko nga maintain ko. waaw munoo ko ñu nangu ko parce que junne junne junne loolu bari na de. parce que gaal bu nekk mun naa am hundred. Mm-hmm. ñaata gaal nga si mun a am. waaw ten. gaal gu ne fifty ñaata gaal nga si mun a am. waaw ok so loolu am solo ba pare te Amadou am na because ñii lañ seen gaal itam daanaka moo ñu li ñu lañ si suñu oto yi système boobu Gambie war nañ see génn. man dama d'accord moto bu ñoo lensin ten passengers moto bi ñew 10 mhm. ji xool ko waaye dem rek man ten passengers la mais fotil wala etine yow gisulo ko nga bindal ko das na correct te loolu lañ del joxe insurance fii ne ak lensin gali dem waji ji ne dañu dañoo ñi ñu nattu ko rek laj na captain bi ko mu la wone mu ndaje 150 people over 200 bu ko hmm. lensin am loolu lo lo mo lensin carré voilà loolu loolu is not correct. non it's not. soo ñun fii ñu ngi laa kuy jël 50 war ngaa mën a dem ba jël 40. waaw te kooku gaalam bi mu ngi laa wane one hundred and mun naa jël one hundred and two hundred ba one te te dat lensin lañ koo jox ndax ñu ko jox lensin bi sax ñëw neen xool capacité boobu ndax lii mun na ko o mun ko. Hmm. gars yi lu gën a di wéy ni ñu doon lensinee ñi ko war a def dañ si war a am expérience and dañ war a ñëw seet naka la nit téeméeri nit di war a toogee si biir gaal. nga nangul ko borom gal gi jox ko lensin léegi borom gal gi deful problème de mhm. yow mu ko lensin ta xamulo ci notin waaw yow ya ko def ya ko def sale dang ko wara gis mhm. physically nga xam ndax li make na sense téeméeri nit ak juróom fukk tok ci bala ma laa jox lensin parce que soo ko defee mu ci raid dafa am pour eb lolu parce que yow ku fa nguur gi tek na ya wara a nit ñi ya wara def li ne saytu li sa xam-xam ci lolu la ma ci yow ya ko def an non la day aimé ci moto yi fu neka nga gis moto bu nga am ne ñu ne fourteen eighteen waaye bu nit ñi toge ni lañu def mhm té loolu yépp dafa waroon a fekk ne waroon na am ku mun a ñëw xool li comfortable ndax nit ñi ne ni ñu toogee jag na oo jagul absolument soo moo tax ñuy am all this problème ndeke ni ñu ko amee si moto yi noonu lañ ko amee si gaal parce que man gaal buy jël téeméeri nit ak nangam man man jaaxal na ma te gaal gi xam nga ne gaal nu digg bi am ceeb yi amuñ ko so nag loolu te loolu lañ leen natt rek mun naa jël lii rek nga lañ seen boromam yomb na lool it's not correct yeah. na ne mun a bàyyi waxaat dañ nekk si àdduna bu nga xam ne nii mm-hmm. lu nekk war nañ ko mun a bàyyi xel war nañ ko mun a saytu mu méngoo ak jamono nekkanu si jamono làmbatu ñun nag ñun suñu bopp ñu ngi ko teg si làmbatu def loo xamut tegoo ko fen est-ce que du réew mi moom moo fa toll rek dafa war a romb nag ba nekkul waaw parce que foofu leen war a jógee amul li ñu yóbbee tey benn ñu toog fii di waxtaan fan yëpp benn mbir di ci indi ay eh, ay ay ay ay different issues. yes mooy dafa am li ko dafa am li ko waral. yeah dafa am li ko waral taxawaay bi nga xamante ne moo waroon am te amul. te amul te ba léegi Gamben si du di ci dund. métti mhm. du ci na xar te xam naa ne bu ñu ubbee line si xam naa ne ñu bari te bu ñu duggoon si téléphone bi loolu la ñu wax. waaw seetaan bi bari na lool te tamit taxaw selo dafa war a am ci yenn doxali ñu bari ci réew mi. te lii ci la bokk. Mhm. you know ba dem na ñëw na daal euh, war nañoo seetaat doxalin bi parce que waxaat naa ko sànq. ni ko buur waxee mun nañoo defaraat kunta kinte mun nañoo indiwaat yeneen waaye bu ñu soppiwu doxalin seen système bi nga mm-hmm. xamante moom moo nekk ci ci ci mm-hmm. ferry service euh, mbir mi tamit mun naa ñëwaat comme ni mu nekkee te ni ñu ko waxee ci ferry service noonu lañ ko waxee ci yeneen institution si biir réew mi loolu dafa dafa bari ci dëkk bi ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci suuf ñoom ñooy def liggéey bu métti bi te daanaka seen cër kenn du ko recognize amul démb loolu dama bi waaw man ay àddina mm-hmm. soo demee buntu ken nekku fa mu ne xoolal fii la puusante daan ne fii la may mo romba nga bañ te ñom ñu ngi tok ci kër yi mm-hmm. ken nekku fa gis nga moo tax mm-hmm. lepp lu la jox nit ñi la nit ñi la te ana ñu rom mm-hmm. puus ñu non bañ nan bañ ma nga bañ ana nit kon du yow nit ñi la nga lol bu ko dom adama di bay xel rek dina dina oyofal boobu anything lu ñu la jox rek ngay pousenté nit ñi di ci ngañewante di doro ko def lu ne nit ñaa la jege rek tey féeri boo fa demee benn pepp nit nekku fa ñoom ñu ngi toog di attaayee kat naan seen lifi ndeysaan ana nit ñi waaw ana yow mu nga xam ne da doon da nga doon Omar Fall dafa war a dugg nga bàyyi ko fa dem indi Assane Diagne ana mu mhm. ana yëfi yooyu noonu yëpp mënatu doon nekk parce que nit ñi nekkatuñ fa mhm. kon nit ñi ñoo tax ñi jox la liggéey nit ñee tax ngay liggéey boo koy def def ko ngir yàlla def ko nu mu waree absolument so dina si dee baax lu jafeñ na nag waaw war nañ see bàyyi xel ba dañ ko rafle ñun mhm. dëkk bi daf ko right once again wax dafa jot de waaw njiit li tam jël ci euh, li fi way dafa jot not only democracy democracy democracy democracy democracy ba réew mi suux ah, de ko ko ah, démocratie ah. ñun Gambia dafa dafa ñun ñun dañ am démocratie ak level yeneen yi am na négligence yi nga xam ne ni càggante gu nga xam ne ni mënu laa jox liggéey nga def ko boo ko fa defee doo fa yendu soo nit ki nag nga sant ko liggéey def ko nu nga ko waree nga koo seetaan nga génnee ko fa loolu ku la wala ne ab du démocratie des na si moom waaw mhm. ah, waaye loolu loolu ku ko tuddee démocratie des na si ñoom so it's waste of time démocratie